Nyamin Dorong, Lingeer, I Womolmin Facebook, Ngamera, you just want to say something to them, then we bring the love story. Waaw eh, sama gars yi comme ni ma koy waxee toujours rek sant ak ngërëm ñi xel ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci face bi yéen a ma leen gënal man toujours lii laa leen di wax tey nag eh, ñu amalaatoon ki nga xamante ne moom mooy Touba Jammeh ci diwaani Old Juice Wang sama magu bopp. Eh, di jigéen ci buur géwél ñu ne Data waaye muy sister ci Black Queen bu eh, moom nag eh, Touba mu ne greetings my beautiful people ñun nag wax dëgg yàlla ñu ñu nit fay nañ la nuyu nañ la am mbégte kontaante ci yow ndaxte bàyyi say ite <laughs> toog rek jàkkaarloog ñun loolu mbégte la boo xamante ne la mënuñ laa wax fi mu toll ci ñun <laughs> vraiment kontaan nañ ci yow yow amal jàmm ñu ne ñu ngi bég ci yow bu baax a baax a baax waa Facebook aw ma seeni fay man fu ma toll dama leen di bëggee. Uh-huh. ah ñun luñ fi def rek yéen yéen a waral loolu. Uh-huh. wax dëgg yàlla toog nii di wax neex na lool waaye bu fekkente ne yaa ngi wax nit ñi bàyyi seen i ité. Uh-huh. toog jàkkaarloog yow fonk li nga xamante ne yaa ngi koy def. te duñ am ci seetaan mais dañuy comment wax dëgg yàlla loolu moom dangeen ngeen ñuy gën a ñaax. ànd ak loolu yëpp duñ def lu may daw rek dem euh, rit li nga xamante ne moom mooy love letter bi ñu leen amal tey waaw Linguère balaa ngaa dem foofu mun nuyu ko gis sama jigéen nga am naa ko bëgg bëgg sama bopp loolu Touba jàmm yi xale yi bës xale yi temps Touba namu naa la <laughs> yow ku la gëj gis gëj a gis ku rafet <laughs> ku la gis macha allah gëj gis ku tabe ku baax ku xam ne bëgg nit koo xamante ne xoolal doo ko ne na nga def mukk mu fas kanamam yow génnul sa kanam bind ci fokk yu yow welcome nga bind xam nga fokk yu dafa neexari da nga naan f yu si kii la waaye welcome da ngay dabul yu soo boo ko bindee da day day gudda kon yow sa kanam da nga koy ubbi mu yànji macha allah Touba Diamé Touba Diamé ji nag amal jàmm namu naa la nag namu naa la trop Uh, that is um, definitely so wonderful. Uh, I said I greet you so much. I greet you. I greet you. Thank you so much for following our show. We love it. Thank you. Um, uh, coming ang uh, kake nyamin dorang asaying ang min sotale wala mo ad love letter. Love letter nun nyindung abota mole bulo kona mi yalan coming ko um, barid la in English then letter uh, nying uh, conversation on nying open. Ako, uh, I am a Gambian but so much in love with someone who is an artist. But my parents uh, didn't want us to get married simply because um, uh, his videos are all over in the internet. So that is the reason why they said no, I should not get married to someone like him. What should I do? I definitely love this person. Is it a crime to love an artist? Or are they not human being like any other person? <coughs> Bulgewell. This letter is from a lady. mu nekk ah, waxtaan wax dëgg wax dëgg yàlla. kenn ku ci nekk am nga droit bëgg ki nga bëgg. ndeysaan wax dëgg waaye nag suñuy kilifa suñuy kilifa lañ. Uh-huh. kenn du xëccoog sa kilifa. Uh-huh. nam jéema waxtaan ak ñoom. Uh-huh. ba xool nan la ñuy trouver solution. mu mu mu sëy ak ki mu bëgg. ndaxte xam nga li olof di wax naan kilifa doj la. bu dalee sa kaw nga toj. yow it boo dalee ci kawam toj. kon nag man suma advice bi may jox xale bu jigéen bi comme que bëgg na waa ji na xamal waajuram mi rek ne artiste la te artiste wax dëgg yàlla dara nekku ci ñun ñu ngi nii tey bu fekkente ne dañ ne ñun ñu liñ toog ci tele di bari wax nii ku ku ku ñu sa doom bugga nga ne du wa du sëy ñun ndax ñun dañuy toog ci télé mbaa dinañ sëy kon nag na ko yaay ji xoolee noonu rek xam ne woykat bi tamit dafay daan dooleem nda yaay ji tey bu Wally Seck ñëwoon ne dafa bëgg doomam mu may ko ko kon lu nekk ci mu bañ koo may xale bu góor boobu tam na kilifa itam di bàyyiwaat seen xel bu baax ci li ñuy def ndaxte waajur ni nga amee cër ci sa doom sa doom noonu la amee cër ci yow léegi nag bul siis raay tam bul siis raay tam bul géwél